يا محمد يا حبيبي يا محمد كن طبيبي وأجرني من ليبين إن أوزاري ثقال آه يا محمد يا حبيبي يا محمد كنت بي وسلم وأجرني من ليبي إن أوساري سخاء سانغ بانغوك waaw organisation gàmmu gi moom euh, bon ñun ci suñu domaine parce que ñun on la cellule Chewiya Tijani et on gère la communication donc du gàmmu donc ñun moom suñu domaine c'est plutôt dans dans dans dans dans ça alors j'ai ko du Yom parce que manque ngi koy wax Rennes, ren euh, gàmmu demande un chiffre record en fait on a reçu plus de 700 demandes d'accréditation, ce qui est très énorme euh, donc ce qui veut dire qu'il faudra trier il faudra voilà voir qui euh, qui accrédité parce que 700 journalistes wala 700 demandes beaucoup de accréditation donc il faut bi une donc il faut tourner caméra pour faut c'est vrai que nous sommes ñu ngi ci métier bi tout ça euh, mais nous avons une étape. il faut que les gens comprennent ça aussi est euh, un euh, événement majeur cest un grand événement à maintenir pour média et on comprend l'envie que tout le monde a de faire de cet événement ou de le couvrir comprendre nañu envie boobu xam nañu engager ñu tout ça mais tamit euh, ñom tamit peut-être il faudra que ñu que ñu comprendre ñu bu baax baax mais inshallah ñun dal euh, on on on on on ne peut pas faire à 100 pour ken mënu ko euh, mais quand même dinañ ci gor def suñu kamtalaay kàttan ba vraiment ñu accréditer liñ ci mëna accréditer parce que sept année yi mënu ñu ko accréditer donc héberger ci liñ ci mëna a héberger restauration mom 700 yëpp problème tout le monde peut manger il y en aura à gogo Inch'Allah. Euh, donc euh, ci ce que le nouveau, le Du côté bon. côté communication aussi là on, l'a démarré depuis depuis des mois on y travaille parce qu'un événement c'est avant pendant et après donc l'événement du Gamou donc avant depuis quelques euh, quelque temps commencé a une communication depuis le point de presse on est le, le point de départ on a même fait une très très bonne campagne d'affichage ren avec Innov. Donc euh, je pense que même c'est la première fois qu'on atteint ce seuil d'affichage de, euh, billboard avec une Dakar ak Sénégal euh, voilà donc côté digital aussi on a fait une très très bonne campagne de digital donc parce que aussi les àdduna bi digital donc c'est un village planétaire donc le monde est devenu un très petit village autour de certains outils des réseaux sociaux donc voilà donc euh, on a communiqué une très très bonne communication li c'est euh, c'est sous le contrôle de Serigne Abdou qui qui est très satisfait jusqu'à là euh, jour fin pour alors nous sommes toujours dans la dynamique du centenaire hein. donc Gamou on reste dans dans le centenaire donc un homme 100 ans après que retenir de cette œuvre parce que Maodo nañu donc ce qui est important tey euh, boy deglu khassida yi boy gis nuuni ya wala yenn wala yenn xilaas yi euh, yu ni mel tu tu vois que les Maodo bàyyi lu ñu dara euh, par exemple il y a le diwan de de Seydi Hadj Malik si mom lañu qui a été édité au Maroc incha allah dina dina disponible ren ci gamu gi boku ko da nga xamné ne Maodo bawul dara donc ñun pour ñun loolu mooy héritage bi loolu moo am solo ce qu'il faut maintenant c'est d'essayer d'apprendre ces écrits là et et de s'en servir jëfandikoo ko nekk nekk mu nekk parce que Maodo wax na ci lépp wax na ci loo xalaat rek Maodo wax na ci waaw suñu mag yi wax nañ ci lépp macha alors euh, peut-être ñun suñu jëmm ji xeebu na trop pour pour joxe message wala wala dénk mais bon euh, man li may wax rek il faut être un talibé quand on est à Tivaouane même quand on est hors de Tivaouane il faut être un talibé mais surtout quand on est à Tivaouane euh, taxawaayu taalibe nak bu ñëwé ci dëkku dëkku sëriñam moy am yar am teggin lépp lu ñuy tere nga bako nga nekk ci jaamu Yalla nekk dal ci lu baax ci lu jub parce que c'est aussi lolu moy thème gamu bi le khalife nous nous a défini un thème bien très clair ne dites que du bien autour de vous c'est-à-dire wax leen lu rafet def leen lu rafet wax leen lu rafet ci lépp lu leen wër parce que lolu bu amé rek nañuy waxante lu rafet di waxante lu baax loolu bu amee je que kenn du kii sinon di di ñaan euh, yoon yi aussi euh, ñu góor ci góor góorlu euh, bàyyi xel yenn vitesse yeeg yu amul njëriñ yi yenn comportement yi ñu moytu ko gën a bàyyi xel passager yi voilà daw ndànk dal ndànk donc buñ ñëw aussi ñu xam nga gàmmu dafa particulier cest di gàmmu li ci kii mooy nit ki mën ngaa xaar ba xam nga gàmmu le huit la samedi la cest à gàmmu mën ngaa xaar ba samedi 18 heures nga ñëw nga gàmmu bu tasee nga ñibbi cest à loolu mooy gàmmu en fait waaw gàmmu loolu la cest à tey c'est c'est vrai que fin burdu nag léegi nekk na événement boo xamante ne peut-être ñu bëri yi ñëw fekk tëj ci burdu après ñibbi suba mu ne nekk bésu lu bi mais gàmmu esprit bi sax mooy voilà 18 heures nga ñëw cest à am na ñoo xamante ne bu ñëwee gàmmu amuñ dal c'est-à-dire ñëw esplanade mosquée bi la laal seen basak gàmmu bu ñu paree ñibbi te loolu mooy gàmmu donc euh, vraiment on évite les gens à, à, être très prudents à s'organiser et que nous ñëw ñu gàmm ci euh, merci beaucoup à vous merci beaucoup à toute la presse qui nañu seen taxawaay yàlla na fay parce que vous êtes nos partenaires et que euh, on travaille avec vous depuis très longtemps li may wax c'est vrai que nous nous avons un contenu à donner c'est un contenu la c'est-à-dire boo vous tegulee qui ko à la ñuy seetaan à <laughs> donc à la tax aussi yéen tamit ngeen ñëw di ko mais ñun tamit contenu bobu ñu yor bëgg nañu luko woné donc euh, li anglais it's a barter trade essence on a un produit vous avez la visibilité donc dañuy échanger rek donc yalla yalla fay leen euh, borom bi gën taxaw محمد كن طبيبي وأجرني من ليبين إن أوزاري ثقة آه يا محمد يا حبيبي وسلم وأجرني من ليبي إن أوساري سخاء